ñu leen di leeral ne loolu sunna ñoom sax leer na leen añaan rek moo tax ñuy wax loolu waaye nag ñu xamut ñoom lañuy ñuy leeral ñu ngi toll ci gàmm gàmmkat xam nga ne kuy déglu yàgg ngaa dégg ay nit di wax ne gàmm bidaa la waaye lu ciy bidaa moo jar a laajte al ixtifaalu feet bil mawlidi nabawi ci judug yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom daf ne sunnatun sunna la bu wér sunna su la kenn mënu ko dàq axil qaari yow sama mbokk muy jàng itrax sànnil ala nafsika sa bopp aswal aati laaj wuy dikk yow miy jàng téere bi li ngay njëkk def mooy nga laaj sa bopp lii limaada yaxtamu lu tax mu yittewoo al muslimuuna jullit ñi suudan ñu ñuul ña wa biidan ak ñu weex ña wa xumran ñu xonq ña وصفر ني سون ني وخضر ني ورت ني ميم بو امي لوتخ مبولم جوليت ني دي تيو في كل بقاع العالم تي مبولم باكي ادنا بي باحياء ذكرى المولد تي دوندل فاتلكو جدو جدوغا النبي نبوي بي كاج يونتو الشريف بو تيد لمن فيهم عندك ني نيك تي نيوم العلماء اي برمي خم خم والصالحون ان يباخوا الاولياء غير man fii min a ulama ànd ak ñu nekk ci ñoom di ci ay borom xam-xam ak ñu baax ay wëlli yàlla lan moo tax addina bi yëpp di gàmm ñu weex ñeeg ñu ñuul ñi ñu xonq ñeeg dégg nga ñu zone ñi doomu aadama yëpp a ngi gàmm ci àddina lépp te mbolam gam golem rek fekk fa yow mu koy wedd da nga fekk borom xam-xam bu la ëpp xam-xam wala bu melni yow boo dee ku baax da nga fekk ku baaxee ni yow boo dé wulli yàlla fekk ay wulli yàlla yu melni yow wulli yàlla yi sa mu ñu wedd gam ñu wali ma za lam yuflih lu tax gagné wut gañewut almuaariduna ñay gam al munkiruna ñay wedd gam في صرف المؤمنين ستور نجرني عن الاحتفال والاسفات بهذا الحدث سبيل خيو خيو التاريخي بيك جوك تاريخ العظيم بأجمعك لتاخ ودي كاري بلغ من يوغي نجرني سيغامو تساسو نيكا ينغ ودي لا جل سلاج بو بل في نيكا تراهم دنگي جس جرني يزدادون ني دول ليكو دي غامو ولو ني دول ليكو ولوان اقير سيغامو وتمسكن اكجاب بممارستي تي دف ci jànkuwante gam saa su nekk ñu ngi weddi ñu ngi critique ñu ngi diingat jullit ñee yokk rek hmm. gàmmu di gën a tasaaroo hmm. di gën a dëggu di gën a eh, jëm kaw hmm. léegi loolu loo ci jànge laajal loolu sa bopp wali maasa yi lu tax sax muy dell gannaaw baax mun kii ne ñenn ci ñuy weddi xan inkaari wali seen weddi gi faaxasu ñu commencé yaxtafiluuna di gàmmu lu tax weddikat yi sax léegi-léegi ñenn ci ñoom dañuy génn ci weddi ga commencé gàmm yoo ngi gis ku daan weddi gàmm ba si kanam mu commencé far di gàmm moom na an xadaawam gannaaw bu leen jubalee allah yàlla bi ma ci naa xam ne yaxtafilu dana feetu bii ci moom al muhtaduna ji gindeeku lu tax ñenn ci weddikat yi dañuy dem ba si kanam yàlla wan leen la mu wan ñooy gàmm ñoom it ñu commencé gàmm lu tax loolu xam nga lii moom jur jur jàng jurul dara ñëpp gis nañ ko adduna bi yëpp seetlu nañ ne weddikati gàmmu yi mm-hmm. luñ wax pour weddi gàmm nit ñi gën a bëgg gàmm mm-hmm. suñ dàqaloo nit ñi gàmm nit ñi gën a jëm ci gàmm mm-hmm. ko moo daan not caaxaan lu tax ñoom ñu noot leen ñoom seen weddi gàmm gi taxut kenn bàyyi gàmm bala sax nit ñi dañuy gën a yokk ci gàmm gàmm di gën a baax di gën a dëgër lu tax loolu dañoo nekkul ci dëgg rek li tax loolu mooy dañoo nekkul ci dëgg bu mm-hmm. nekkoon ci dëgg seen xoote googu rëy googu dana jëriñ dara mm-hmm. weddi waa waxaabi yoon yi noonu la toujours ñi bidaaloo ñooñ tarixa tarixa di gën a tasaaroo mm-hmm. di gën a yokk nit ñi di ci jàpp xel woo dem fekk fa boroom tarixa lu tax weddikat bi yuuxu na ba sonn mënu ci dara dafa nekkul ci dëgg rek xam nga xaj buñ xeew muy bëw euh, weer wi nekk ci kaw asamaan mënalul ko dara dafay sonal boppam rek mm-hmm. ñoom it noonu lañ mel seen wedd yooyu mm-hmm. wedd nañ gàmm ba sonn gàmm di yokk lu tax loolu daf di dëgg mm-hmm. weddikat lislaam yi wedd nañ lislaam ba sonn lislaam a ngi yokk rek daf di dëgg weddikat tarixa yi wedd nañ tarixa ba sonn mënuñoo def la borom tarixa ba def ñoom ñëpp buñ dajee woon la borom tarixa ba def ñoom ñëpp mënuñ ko def ñoom kes ñoom ñoom ñoom ñëpp daf di dëgg rek faydikati faydi yi wedd nañ ba sonn ñoom ñëpp buñ daje woon la kee borom faydu bi def ci àdduna ñoom mënuñ ko def te mbooloo yooyu ñuy weddi kat yow mi weddi noo mën a mel boo demee fekk ku mel ni yow bokk ci biir mbooloo moom waaw man ngaa nax benn wala ñaar waaye mënoo nax mbooloo àddina yëpp kenn mënu dajee ndax leen islam nag dafa daj àddina yëpp tariqa dafa daj àddina bi yëpp fayda dafa daj àddina bi yëpp gàmm sax dafa daj àddina bi yëpp soo dee borom xel war a xam ne dëgg la de hmm. laajal sa bopp loolu lu tax waaye gaa yi wet dinañ gàmm ba sonn gàmm di yokk boo laajal sa bopp dinaa la wax di dëgg rek dëgg kenn mënu koo xeex. Hmm. léegi nag soo dee sax léegi ñu ngi fay lal gàmm boo naree gàmm kenn du la aaye <laughs> te bu njëkk ñoo gënoon a tat waaye man man ngaa wax sax kuréelu wahabi yi ñoom ñoo ko samp soo dee bu demee ba foofu nga xam ne ñoo samp kuréelu wahabi yi طريقه دغوفا اي نيت مانا ديم فوفو داي سفيان كي لال فمران وزيفا دي وزيفا دي وزيفا اي نيت دغوفا دي غام كين ما سينيتو لين اي خا دغ من تياخان دي سو دي ليغي دنج فاي غام جيل داي ديم بو فوف وزيفا وزيفا كين مونسي dégg nga aljawaabul maquul tontu bañ xelu almaqbul bañ nangu alwaxid bu wéet woo moom anal muslimin ne jullit ñi yaatabiruuna dañoo jàppee ixyaa haasihi zikra dundal bile fàttaliku waajiban muy lu war diin yéen bi ko jug diine muqaddasan muy luñ sellal yajibu dana war ixtiraam wa respecté ko jàpp ne la ci diine ku ne war na ko respecté nekk ca nga ne ko ah, li nga wax reeni de yow waxoo sol luñ sopp la nga gar la mooy ne waru gar la mu ne naam waaw aqulu damay wax ne waajibun diin yun waru garu diine la li ma yaati ngir nag mul bi day yàq yéen bari mm-hmm. damay wax ne gàmm waru garu diine la dafa war ñu taxawee ko mm-hmm. ndax lan ndax lii di dikk benn ci lay gàmm yi قال وانا الله يا الله تعالى كون في ذكر الحكيم كثير بن قرن بمور القران نقول وخل بفضل الله جنني لي الله وبرحمته اكثر ما نيا الله فبذلك تلول فليفرون نجد هو لول خير موغن مما يجمعون شي ني دجال لي نين دجال شي ال غودوس نين بك شي نيلو يالله اك يرمان يالله موغن لول نيا الله آه. كون يرمان يالله يرمان يالله دنج سي ورا بك نيلو يالله دنج سي ورا بك يونس 58 فأي فضل بن غنيل لك أعظم وغن مد من ميلاد سيد الوجود سجدك سنغك حمكي وعلى الشهود تموي درا فوق لني جنوك موغن راني كو صلى الله عليه وسلم ليك بن غنيل موغن مد يونس صلى الله عليه وسلم بك بس بني يالا اندي يونس بي لول بك سي غنيل يار دال نكوت كون كو بك lu aju ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kenn mun laa wet waaye rahmatin ban yërmande ablaxu moo gën a jotal min irsaali ci yónni gi ñu ko yónni ila naas jëm ci nit ñi rahmatan mu di yërmande lahum ñeel leen yónni gi ñu yonent bi ci nit ñi xam gi ñu xam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy gi gën a bal sax yonent bi mooy jëmmi yërmande kon bëgg ci bisu juddoom mooy bëgg ci moom mm-hmm. bëgg nañ parce que moom mooy cadeau bi gën a bu ñu yàlla jox maa aadama ñaareel bis bu mu fonk am ci kado daf koy feet te loolu lislaam daf ci fekk xeet yu jiitu woon nangul leen feet gi nag du dem ci yonantoo mu naan ko jàmm yàlla gi ngay def wala jaamu yàlla gële ngay def déedéet ñoom ñooy xool loo xam ne ni yàlla xaayawul ko bëgg na ko rek ñu feetee ko bis foofu yahudi noonu lañu doon def ci bis bu yàlla musal Moussa mm. yonent bi ñëw nangul leen loolu topp ndoor leen sax ne na ñu nit ñoo gën a yee ci musa waaw bis la bu yàlla defal leen cadeau mooy xettali musa hmm. saa yu bis bu ñëwee ñoom ñu feetoo ko bégee ko nañ ko doon feetoo nag mooy tànn benn jaamu yàlla muy koor di ko def moo ñoo tànn leneen moo ñoo tànn leneen nag leneen lu ñu tànn baax na hmm. parce que am naa fi dëgg yàlla xamul kenn ko xam benn tegtal di la tegtal bu lott la buy wane ne ak naafila moom bis bisab sant yàlla ba jaamu yàlla sa naafila sàngam lañ ci war a def loolu xamul kuy xam tëkkal mhm. bisab sant yàlla loo ci def ci jaamu yàlla pour sant si yàlla baax na mhm. bu la neexee nga woor bu la neexee nga lele bu la neexee nga julli bu la neexee nga tudd yàlla lu bëri loo ci def comme que yàlla daf laa tànn bu mhm. léegi bu fekkee yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafay jug guddi di jaamu boromam ngir naafila ndax lañuy wax ne jub guddi di liir comme ku yonentu defu kon dafa xaraam kenn ko wax xaraamut mhm. nem jaamu kon bis bu la yàlla defal ngëneel mhm. nga di sant yàlla kooku yonentu moo ko njëkk iqraar la mën naa nekk mhm. ba topp ndoor sax ña ko doon def ñun nag xamuñ ngëneel lu raw bis bu ñu yàlla joxe yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa jëmm ji nga xam ne boo booleem bark bu ñu am tey ci moom lañ ko xamee bis bu ñu ko yàlla joxee amuñ kado bu raw loolu danañ ko féete ñun loolu ci nekk hmm? qaala allahu taala yàlla ne wa maa arsalnaaka yónnuñ la illaa rahmatan lu may nga yërmaane lil aalamiina ñeel mbindéef yonent bi mooy yërmaane ñeel àddina bi yëpp te yàlla nee nañ bëgg ci yërmaandeem kon bëgg ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi bëgg ci bis bi nga xam ne yàlla jox na la ko yonent bi sallallahu alayhi wa hmm. ci yërmaande yàlla hmm. ci nga ne yàlla jox la loolu dara nekku ci wa nusiba askane nañ ilay jëm si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xawloo waxam ana man rahmatu maa di yërmaande al muhtaat bañ muhdaat ba nga xam ne dañ koo def muy kado kado bi leen yàlla jox kado bi yërmaande bi leen yàlla jox man la yonent ko wax mooy yërmaande gi nga xam ni kado la pour ñëpp waaw ku am kado nag gu nii waxtu wañ la joxe woon dellu ci nga bëggee ko lu ci nekk fekk loolu dafa xaram yonent bi du fekk ñu koy defal seen seenam yonent boo xam ne toppatuñu yonent boobu sax waaye ndem lu ñuy def lu baax la rek dañuy bëggee bis bi yàlla defal seen yonent xéwal googu mu topp ndoor leen sax ne leen ñun ñoo leen gën a xeec ci kooku ko ñu ne danañ bëggee bis boobu saa yu jotee mu xoor ko yow nga ne yonent bi nga xam ne moo gën Moussa fuuf moom bis bu ñu yàlla jox yonent boobu muy kado hmm. kado googu ñun mënuñ koo feetee loolu mooy waxi lan mënuñ cee kontaan mënuñ koo bëggee bis boobu saa yu dellu see lu ñu neex ci jaamu yàlla mën nañ ko def ngir sant yàlla ci bis boobu. Mm-hmm. sant yàlla kenn tënk kenn mënu koo tënk feneen ku ko tënk ci leen rek na la andil hadis. Mm-hmm. <coughs> tënk ci leen rek na la andil hadis bis moom boo ci sant yàlla wala ay alquran sax wala sa waxi benn mag wala wax ju xaw a lootu sax bi wane ne sant yàlla moom ci ab bis nii rek lañ ko mën a defee loolu xam ku ko mën a mm-hmm. ku ko mën a sant yàlla jaamu yàlla ko du neex nga def kon yonentu mooy kado gi ñu yàlla jox kado bi yërmaande bi ñu yàlla jox mooy jëmmi yërmaande bis bu mu juddu moom yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam boobu mooy bis bi ñu jox kado gi gën a mag ci kado yi ndax mboolem xewal ci loolu la juddu kon bis neexee ñu féete ko ñu neexee ñu bégee ko xool yàlla gu ñu neex ñu def ko ci loolu dara nekkul ci ndax yàlla wax nañ bég ci yërmaande فإذا دجال المسلمون جرين يفرحون دبك بمولده تجد ينتبه تطبيقا قد لقوله تعالى وحي الله من فليفرحوا ننبت فمن ذا الذي أنا كين قمنا يمنهم لن ترى من ذلك تلورو bis bu yonentu judd muy cadeau bi gën a mag ci cadeau yi bu ñu yàlla jox bis boobu dellu ngir ne yàlla wax nañ bëgg ci yërmande mhm. léegi ku ñuy ku ñuy aaye loolu mooy kan moom kenn duñu ko aaye illam yakun lu mooy mu nekk ndem nekkul zaaka lazi kooku nga xam ne laa yaxtamu yittoowul bi awaamir alquran karim ci ndigli alquran karim ku faayewul alquran rek moo ñaam bu leen bëgg si bis boobu mhm. yàlla nee nañ bëgg si yërmande mhm. bis bi yàlla joxe yërmande saa yu ñëwee nga fàttaliku mbégte boobu xewal googu daal di bëgg ngir ne yonentu boobu ci la كان مولا كي آية لما يكون خمني بلا بقونا بل فالة القرآن القرآن نلا بيقل مو ملا بل بيت بيقل شير مانا يالا يولن تبلي شير ماني كينا مك شير ماني ورسا مو جمع شير ماني بس بلو كي يالا جوك ساي نيو ينغ بيق ملا بل بيت كو فالو لا القرآن ولي يعز بالله يالا يالا موسى ñàkk faal alquran rek mooy a loolu naa la bul bég ci bi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. ñàkk faal alquran da alquran nee na fal yafrahu bis boobu nañ bég ci yërmande yàlla mm-hmm. kon bis bi la yàlla joxe yërmande saa yu ñëwee nga fàttali ko bég ci loolu dara nekkul si comme ni ko yahut yi defee mm-hmm. ci xewal gi yàlla defal ci Moussa ñoom loolu lañ tànn di ko bégee réew mu nekk sax bis bi la yàlla jox cadeau nga am li gën a foor ci yow mooy indépendance at mu jël nga bégee ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy cadeau bi gën a fort bi goreel jaam yëpp ñu am seen indépendance gu ma sëkk mhm. seytaane mënatu leen dara bakkan mënatu leen dara eh, àddina mënatu leen dara mhm. kooku bisam bis bi ñu yàlla jox xewal googu saa yu ñëwee war nañ ko bëgg ndax yàlla wax bëggee leen ko ñaareel bi aqara saxal na allah yàlla taala kaw ne nabi ñëw yonent bi sallallahu alayhi ñaareelu lay bi ci gàmm mooy ne yàlla wax na yonent bi ne ko an na fi xisasi rasul nekk na ci histoire yonent yi allati yi nga xam ne toxkaa danañ ko nettali ale yi ci moom tasbiitan ak saxal loo ñeel ko fii muhimmati ci itteem annabuwe bi ka jóg yonent chaaq bi aji jëfe yàlla wax na ne histoire yonent yi ñuy nettali yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa dana ko dëgëral ci gëm yàllaam ak ci jafe-jafe yi muy daj ci yonent gi ba man koo xeggali ci ni ko yàlla bëgge kon nettali histoire yonent yu jiitu dana dëgëral yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci yoonam kon ñun nettali ñu yonent bi nga xam ne moo gën a yonent yu jiitu woon daj luñ dajut danañu ñun si suñ yoon parce que ñun moom mooy suñu roykaay kon yàlla wane na ne gàmm dara nekku si gàmm mooy nettali histoire yonent bi pour nit ñi gën a dëgër seen gëm yàlla gën a dëgër seen mbir gën a dëgër ñu gën a xam fa lañ teg seen tànk gàmmu loolu lay jëriñ waaw yàlla war na nag yonent bi si boobu nettali ko ñu jiitoon dana ko dëgëral ci yoonam kon rawati na ñun nettali ñu histoire yonent moom danañu dëgëral ba xaaral wax na jàll kawe na waxaala màgg na wa kullan lépp naqusu danañ nettali aleyka ci yow min hmm. an bàyyi rasuli xibaar yonent yi maa la nga xam ne sabitu danañ dëgëral bii ci moom fu aad ak sa xol danañ leen nettali lu gën sa xol sa gëm gën a yokk hmm. Hmm, nga gën a mën a dégg nga wajaaka dikkee na la fi haadihi ci saar yi alxaqu dëgg wa mawizatun ak waare zikra ak fàttaliku lil mu'minin ñeen way gëme su ko defee ndem yonent yi jiitu yonent bi gën leen foofu nga nettali seen histoire yonent bi dana tax yonentu gën a gëm ñun ñi nga xam ne dégg nga parce que yonentu yàlla ñooñu la ko wax na leen roy fa bi muqtadi na nga roy kon ña nga war a roy dañ laa war a nettali seen histoire ñun nag ñun bi la roy ñun laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasana kon ñun dañoo war di nettali histoire yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu war a garu diine la bëgg ci yàlla diine ko santaane yàlla defal la xewal béggoo si xam nga ne loolu becc nga yàlla la mm-hmm. kon loolu war a garu diine la waaye nettali nit ñi seen royukaay kooku lislaam a ko santaane ndax koo roy da nga ko war a xam kon mm-hmm. nettali nit ñi histoire yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu si boppam waru garu diine la mm-hmm. moo tax yonent bi yàlla ne ko fa bi hudaa muqtadi royal yonent yi jiitoon ne ko nag danaa la nettali seen histoire pour sa gëm yàlla dëgër ndax ñooñu nga war mm-hmm. ñun xeet wi tamit yàlla nañu roy la yonent bi laqad kaan lakum fi rasulillahi uswatun xasana yàlla ñu nit kon war nañoo nettali histoire yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam pour suñu gëm yàlla gën a dëgër moo waral gàmm nettali histoire yonent bi pour ñun ñu gën a xam nan lañ fan la ñuy teg suñu tànk mm-hmm. jafe-jafe àdduna na la ñuy dundee ak moom mm-hmm. suñ gëm yàlla gi nan lay yokkoo nan la ñu royee yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba ci soloom ba ci lekkam ba ci naanam nan lañuy xeex ak seytaan loolu lépp jikko yonent bi lañ ko war di jàngale loolu mooy gàmmu de ku conférence sax da ngaa gàmmu ndax boo conférence bu fekkee wax nga loo xam njëriñ rek wax nga jikko yonent bi da kaana xuluqul quran su fekkee gàmmu dafa xaram conférence dafa xaram conférence yi ngeen jàpp at at wala weer ak weer du dara lu may nettali nit ñi jikko yonent bi sallallahu alayhi lu tax ngay jàpp conférence at at nit ñi dajee mm-hmm. ngay nit ñi jikko yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga ne ñun ñu def at jot ñu dajale nit ñi nettali leen jikko yonent bi luy lool loolu mooy waxee lan lan leen teqale boy conférence thème bi nga jël dang ci wax jikko sallallahu alayhi wasallam rek nga def ko at ak at ñi def ko ak yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam nag ñi nga xam ni moom mooy jëmmi jikko yooyu yëpp at mi jot ñu waxtaanee ko leeral ay mbiram nit ñi xam ko man koo roy lan moo ci nekk dara nekkul ci lu may ko soxal rek gis ko la raw nga bëgg wax ne lu mu nekk bidaa la dégg su ko defee yàlla nee na hmm. yonent bi yonent yi jiitu ñooy sa roykaay hmm. kon danaa la nettali seen histoire ñun yonent yàlla Muhammad mooy suñu royukaay kon danañu nettali histoire yonent bi ñu ñu baax ñi danañ ko def amma saxaaba yi ne ñoom soxlu ñu woon gàmmu jot nga leen gàmmal si yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax ñoom dañoo dund histoire yonent bi ñoom dañoo jënoon ak moom jënoo sax mooy gën a jeexit ci xol ñu lay nettali ñoom dañoo jënoon ak loolu danañ mën a muñ ñoom waaw xam ne ni mu ngi jënoon ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga ko yonent bi ba mu demee xare nii dafa def ak naa la fa def at mi jot nga di ko nettali lu mu koy jëriñ da koo dund kooku soxla wut ko waaye bu ñu demee ba ñu dunduñ ko nag gëm yàlla gi gën a wàññeeku jamono lëj hmm. réer bëri jamono boobu farata sax lay doon laa wax waxuma kii farata lay doon ñu xamal ne ñu yonentu boobu sallallahu ndax koo war a roy da ko war a xam amaa di ko def at ak at nag pour bañ nit ñi yokkal rek la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ibnu Mas'ud par alxames par alxames ñu ne ko lu tee nga waar ñu bis bu nekk xam nga waare juru jàpp bis ndax saa yu neex mën ngaa tëw waare mais da ko doon jàppal bis paral alxames mu waar nañu ñu ne lu tee nga wàññi bis bu nekk mu ne bañ ngeen yokkal rek yonent bi nii la ko daan defee ku yonent bi da daan def da daan xereñe mbir yi jël bis di ci joxe benn message pour nañu jariñu ci waaw semaine bu nekk na nga gam agee nit ñi dootuñ ñëwati gàmm dafa métti dañuy tayal waaye soo ko defee at ak at lu mu néew néew nga dajale ci discours bu baax jox leen ko ñuy déglu loolu ba at mi dellusi mm. dëgg-dëgg bu fekkee bëgg nañ jub danañ jàpp dara ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa ci jàpp dara loolu mooy gàmmu kon jàppal ko bis dara nekku ci Ibnu Mas'ud jàngal na loolu sunna la nettali histoire yonent bi moom lu war la sax moom bég ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bis bi la yàlla joxe yonent bi nga bég ci mm. kooku moom lu war la parce que bis boobu seytaane moo ci yàqoon seytaan def cee jàqoon yow bis boobu bu ñëwee nga leen doo ci bëgg rek jàq nga ci maa def waaw ku yow ak seytaan yéen a bokk position mm-hmm. waaw bis bu yonent bi juddoo bis boobu àddina bi yëpp bëgg biddiw yi sax dañoo bëgg ba wàcc loolu ko ci yeneen bis laylatul sax amul loolu mm-hmm. lu muy foor foor xamul juddu xërëm yi di daanu jinne yi di yuuxu di wax kaaba ga yëngatu ndax kontaan laylatul qadri sax xamul loolu laa biddiw yi wàcc leer gi wàcc ba ngay seen pare saam ya kon kay àddina bi yëpp a ci juddu yonent bi sallallahu alayhi wa bis boobu noonu nag yonent bi juddu hmm. àddina bi def loolu njaaxale ya nekkoon penku dem sooxu ngir bégal leen ya nekkee soowu ñëw penku ngir bégal leen malaaka yi wàcc hmm? Hmm. bis boobu kan moo bégut amul guddi gu xam nag lu toll noonu moo tax guddi gàmm kenn du ko tëkkalee sax beneen guddi boo ko bëggee xam xoolal dafa xew rek guddi laylatul xadri malaaka yi ñoo wàcc ñi ne na nga neen fee moom malaaka yeeg biddi bi sax dañoo wàccaale moom wàcc far xoolal nga ne li guddi gàmm am doo ko gis sax ci guddi laylatul xadri guddi laylatul xadri jot na waaye biddi yi wàccuñ mënoo seen pare mm, chambre yaa ngi nekk makka leer yi dugguñ ci kër yi mm-hmm. kaaba ga yëngatuwul xiram daanu dara waaye guddu yonent yi moom lépp toj lépp daanu waaw tabaxu Kisra toj lalu buur yi mm. alayhi wa xam nga ne guddi googu beneen guddi melul ni moom de mais guddi gu mel noonu àdduna bi yëpp bëgg yow nga ne bu nit ñi bëgg léegi yow loo bëgg a wax mooy faale wu ma lislaam faale wu ma alquran ñun dinañ bëgg même bu la naqaree lii moo tax waxkati gàmm yi wax nañ ba sonn ba leen gàmm nit ñi di gàmm parce que ñoo xam ne ñii yàlla daf leen nattu yow feebar kon loolu la mooy guddi gàmm guddi gu ñu war a bëgg la nettali nit ñi histoire yonent bi lu ñu war a def la. ndax dana yokk nit ñi ak ndëgër laay fa idaa kaana bu nekkee rasulullah yonent yàlla bi sallallahu alayhi wasallam yaxtaaju li aajoo ilaa maa yu sabitu jëm ci luy dëgëral fu aadoo xolom min axbaarin ci ay xibaar wa qalbu te xolom saabitun lu dëgër la aslan ci cosaan waaye boo ko nettalee xibaar yi yonent yi jiitu woon dana gën a dëgëral xolom ndax ñoom la war a roy fu ma baalu naa loo xam si ñun nax nu ñun lan mooy suñu solo nax nu ñun loo xam si ñun ñun bu ñu nettalee jikko yonent bi sallallahu alayhi wasallam lan lay def si ñun loolu foofu mu dëgëral ndax boo nekkoon ci jafe-jafe ñu nettali la jafe-jafe bu gën a métti bu yonent dund da gën a mën a muñ mm-hmm. boo demoon ba bëgg a xaru ñu nettali la la nga daj lu ko raw lu yonent daj danga mën a muñ nettali histoire yonent bi kooku lu war la wutal ko bis nag mooy Ibnu Mas'ud defoon rek pédagogie la kenn mënu ko aaye mm-hmm. alasna ndax nekkuñ bi axwaja li gën a soxla minu ci yonent bi ilaa maa yuqawi naa ci loo xam ne dañuy dëgëral min sirati si jikkum ataahiru yu laab allahuma balla akay soxla lañ kay ñëw nett lañu yonent bi pour ñu gën a laab loolu mooy gàmmu de gàmmu daal ku ko weddi rek defee ko ci beneen façon rek boo ne dajale nit ñi nettali leen yonent bi sallallahu alayhi wasallam comme que gàmmu lañ ko tuddee baaxul waaye léegi bu ñu ko tuddee conférence kon léegi nag changer tur rek tuddee ko conférence mu baax xam nga loolu mooy caaxaan dëgg dajale nañu tuddee leen tuddee leen nettali leen yonent bi baaxul parce que nan parce que gàmm lañ ko tuddee feet juddu yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye ko tuddee léegi conférence at jot rek ñu dajale nit ñi nettali leen jikko yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko conférence ñu baax na mais yéen tur du dara de la tur bi ëmb rek mooy mbir ma mm-hmm. bëgg ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam bis ba mu juddu bëgg ci dara nekku si waaye nag buñ ko tuddee euh, feet mu ñu xaram xaraam tuddee nañ ko gàmm ñu ne xaraam bëgg si yonent bi nag ah ñu ne loolu dara nekku si waaye bëgg si yonent bi comme ko xaraamul kay ah léegi feeñal ko rawa euh, ci bis bi nga xam ne ci la judd nga nga gën ko cee feeñal lu ci nekk bu fekkee bëgg si yonent bi dagan hmm. feeñal mbégte gi lu ci nu muy xarame loo xam ne bëgg ci dagan na feeñal mbëgg ci sëñ bi mënul def lu mooy dagan léegi boo laajte woon bëgg ci yonent bi rek ñëpp dañ naan la dagan nga ne feeñal sa mbëgg ci yonent bi sallallahu alayhi la dagan nga ne gàmmu ñee parce que tuddee nañ ko gàmmu te gàmmu neexul leen <laughs> xam nga loolu mooy caaxaan dëgg gàmmu nag feeñal sa mbëgg ci yonent bi la nettali histoire yonent bi rek la ana lu ci xaram bu fekkee feeñal sa mbëgg ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dagan na nettali histoire yonent waaye mënu ko waxaay waaye bu dee jàppal bis gi ñu la jàppal bis nag ma ne la loolu yonent moo ko njëkk saxal ci sunna fekk yahudi doon fete bis biñ amee woon xéwal yonent bi moom saxal loolu ne lol ci lislaam la bokk di fete bis bu Musa amon xéwal bis bu yàlla xettale woon yonent yàlla Musa alayhi salam yahudi lol bis bu màgg la ci ñom ndax bis la bu len yàlla defal xéwal gu rëy ñi diko fete feetee yonent bi ñëw d'accord lolu kon bis bu yàlla may ab xéwal gu mag nga diko sante lolu loolu yonent bi wane ci lislaam la bokk lolu mo andi de ñu wor tamxarit loolu ko andi de kon bis bu yàlla joxe kàddu muy yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu di ko sant ci bis boobu loolu dara nekku ci te sax maanaam sax même bu fekkoon benn xadis ñëwul ci sax laa wax ma ne ma ne la sant yàlla moom xaraamut te bis bi la ko yàlla jox comme que xaraamut ci benn bis bis bi lu ko yàlla jox nag nga fàttali ko waat ko santaat ko dootu dootu xaraamati ndax man naa am li nga bëgg a def bis bu nekk nga saxal ko mënoo ko waaye saa yu bis bi dellu see nga def ko loolu ci nekk loolu pour mën see sax rek la de rawatina mu amee ndëgër laay moo ne yonent bi na loolu mën naa nekk mooy bis bu la yàlla may xewal comme bis bu yàlla mayoon xewal Moussa bu jotee nga jaamu si yàlla gu jaamu yàlla gu la neex nag ngir sant ko geneen jaamu yàlla goo fa xaay rek yaa ko waxal sa bopp waaye yonent waxul ko moom dafa tànn benn rek def ko parce que naafila la mënoo boole yëpp leneen loo ci aaya nag indil tegtal allahuma balaa walakin al munkirina waaye weddi kër yi laa xoona duñ dégg fa talabu tasbit sàkkoo dëgëral mina taarix ci taarix maanaam di xool ci taarix pour sa xol dëgër lañ dund nga xool ko ngir ne yow boo dundee lu mel noonu nga mën a muñ wa xaasatan rawatina mi man ci ki nga xam ne bu ngay sa yónni nañ ko luy tamit ma ngir mottali makaarima axlaaq yi jikko yu tedd yi kooku waajib mun diin yoon dafa war ci diine laa yu maari du werante fi zaalika ci loolu illaa mutaannitun lu mooy ku dëgër bopp aw mat muusul basira wala kuñ faar xolam nga xool mag ñi jiitu lañ doon dund sax nga nettali ko nit ñi xam ko pour man leen roy rawatina nag ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga nettali ay jikkoom parce que moom moo ñëw pour mottali jikko yu baax yi kooku lu war la ci diine ndax nit ñi war ñoo xam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon war leen nettali jikko yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu kenn du ko weddi ne loolu lu war la lu mooy ku dëgër bopp bëgg a werante wala koo xam ne xolam dafa faaru gisatu dégg kon su ko defee lañ jàng ci darsu boobu mooy ne na nga laaj sa bopp lu tax weddikati gàmm yi ñu ngi weddi gàmm waaye gàmm li gën a yokku ñoom sax ñooy dem ba ñenn ci ñoom bàyyi far di gàmm lu waral loolu tontu ba mooy gàmm dafa di loo xam ni mënul ñàkk ci diine moo tax ñi di ko taxawee warugar la rek moom noonu ko jàppee sax waaw gar la parce que xamal nit ñi na ko xamal nit yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam kooku waru gar la mu ne lu tax mu ne gàmm waru gar la parce que yonent yàlla daf ne na ngeen bég si yërmaande yàlla te yonent bi mooy jëm jëmmi yërmaande yàlla kon bég si yonent bi yàlla ko santaane ndax yonent bi mooy jëmmi yërmaande wa maa arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiin ne ko yónni ma lu may nga yërmaande ñeen mi def comme que yonent bi mooy jëmmi yërmaande bég si la bég ci yonent bi lu war la kon feeñal sa mbégte ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tamit lu war la feeñal mbégte googu nag noonu neex nga koy feeñale noonu neex ngay rey ay xar sante ko yàlla noonu neexee ngay tudd yàlla lu bëri bu neexee nga julli bu neexee nga nangam ku wax ne nag feeñal sa mbégte ngir sante ko yàlla nii rek nga ko war a defee waroo ko defee ne na andi dalil lu la andil tegtal bi laa yomati bi laa yomati kon su ko defee bëgg si yonent bi lu war la bis bi la yàlla jox xewal googu nag kooku rawatina bis boobu danga ci war a feeñal sa mbégte dinañ ci ñëw ndax bis boobu ba mu juddoo yàlla si boobu moo feeñal mbégteem si wàcce leer gi ngay seen pale chamia biddi yi wàcc ba boo yëkkati sa loxo xaw koo laal malaaka yi wàcc ndax ne yonent bi sallallahu mooy juddu pale yi toj xiram yooyu wax ci kaw boo samp mu daanu jinne yee way di wane ne Muhammad ñëw na kaaba bëgg a yëngatu jaaxal ya nekkoon penku dem xarfu ngir bëggal leen ya nekkoon xarfu dem penku ngir bëggal leen dëgg dëgg ñoo ñëpp dañoo xaar ba bis bi yonent ñëw ñu ci yonent seytaane jàq ba bindi yow na nga ne bis bu yonent bi judd léegi instant bis boobu bu dellusee see waaw buñ bëgg léegi buñ bëggu nu ñu dañuy yàq mooy ne roy leen seytaane kon bëgg ci bis bu yonent bi judd kooku moom sunna la yàllaa si njëkk bëgg bëgg loo àdduna bi yëpp keroog ba mu juddoo kaw te yi ci feeñ yàlla rek xam nu toll keroog bu yonent bi juddoo boo ko doon lim fii du jeex hmm? mm-hmm. kon bis boobu bisu mbégte la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom ci moom saxal na di continuer di bëgg ci bis boobu ngir sant ci yàlla moom loolu da ko saxal ci dundam yëpp moo tax gàmmu kuy wax naan gàmm ñun rek ñoo ko def waxu dëgg de gàmm yonent bi moo ko njëkkee mhm. gàmmu du dara lu mooy sant yàlla ci bis bi mu la jox yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent bi moo njëkk def loolu danañ ko jàngal suñu darsu bi di di topp insha allah rabbi mhm. kon saxal ko yonentoo ko njëkk saxal safar saa yi boo jotee mu bëgg ci moom mhm. seet yàlla gam ci def Hmm? ñaareel ba mooy ne moom ne na ne yonent bi moo yonent yi jiitu mooy seen kaay yàlla nettali na ko yonent yi jiitu pour moom mu mën a dëgër ci yoonam ñun nag yonent bi mooy suñu royukaay kon war nañoo nettali yonent bi sallallahu alayhi wasallam pour ñu mën a dëgër suñu yoon kon koy gàmm warugar la warugar la léegi na man damaa waxoon ne buñ ne gàmmu nga ne déedéet ñu ne conférence nga ne waaw gàmm conférence benn la de conférence yi ngay jàpp waxuma la sax yonent bi ñoom seen école yu ñu fonk rek seen école yi ñu fonk rek école xaalis lañ ci wut nag loolu rek la dañuy wax rek xaalis rek moo tax ñu fonk ko hmm. bu doon lislaam xam-xam bi ak lislaam gi moo tax ñu fonk ko yonent bi dañuy feetal waaye duñ feetal école ndax yonent bi moo la nekk ci école bi yonentoo ko fa dugal léegi nag yoonantu dugal xam-xam ba ci école ba nga mën a at mi dee léegi nag parents yëpp dajee ñu feetal école wax ci école bi joxe ay leçon neneen loolu dagan na ci sàkku xam-xam kaa sàkku xam-xam du jaamu yàlla mhm. yonent dafa mos a def loolu mos ngaa gis école tëj yonent école sax dafa mos a am ci yonent bi wala toog xat ba mi jeex rek yonent dajale wax ci école bi wala ci daara ji wala ci nangam gi yonent da ko mos a def benn saaba da ko mos a def ñoom ñoom seen école yi dañ koy feetal seen école yi dañ koy feetal mhm. ndax ne xam-xam bi ci nekk bëgg nañ nit ñu ñëw xenc ci ko jariñu ci moo tax ñu koy feetal mais yonent bi nga xam ne mooy école yi école yi moom waruñ koo feetal ndax li nekk ci moom nit ñi dem xenc ci ko te caaxaan baaxut yonent bi moo gën a yeewoo ñu feetal ko si gàttal li ma la wax mooy yow su fekkoon dangaa jël dara ci sa xam-xam tuuti yow sa xam-xam lu yaatu la nga jël ci tuuti def ko ci man mm-hmm. nit ñi ñëw di jël ci man xam-xam si misaal di ci jariñu ay nit ne ah buñ demee ba at mi dee kat nañ dajaloo feet pour gën a leeral njariñ li nga xam ni mu ngi ci oustaz dégg nga ndax nit ñi gën a mën a ñëw jëriñoo ko waaye ki nga xam ne moom moo jox oustaz xam-xam boobu te tuuti la ko jox moom kooku moom bu kenn dajaloo pour wax si moom dara loolu fiiraange lay niru wala lu muy niru par parloo rek mm-hmm. yonent bi moo def sa école lu ndaw loolu mu ci def mm-hmm. nga ne mën ngaa feetal école ba mm-hmm. waxtaanee xam-xam yi ci nekk xëcc parents yi pour ñu gën a mën a jublu ci école boobu mm-hmm. leeralal leen njëriñ li ci nekk pour ñu gën koo xam waaye yonent bi nga xam ne moom moo ëmb école yëpp moom moom kenn bu wax ci moom dara bu nga wax ci moom daganut mm-hmm. kooku mooy caaxaan kooku mooy caaxaan dëgg dajale wax ci yonent bi dafa xaraam waaye dajale wax ci école bi xaraamul dagan mm. loolu mooy caaxaan moo tax gàmmu même boo boo ko deful waru garit mun a waroo wax ne dafa xaraam wax ne dafa xaraam moom ñàkk teggin dëgg la moom ñàkk teggin la léegi nag defe naa ñu ngi def semaine boo xam ni Muhammad ibn Abdul Wahab ko nga xam ne moo sos kuréelu wahab yi nga xam ni si jamonoom dañ koo dàq nañ ko ba sonn génn nañ ko ba sonn waaw mbokk mi sax taayif nañ téere ngir dal ci kawam ndax dansé gi mu dansé woon waaw dem daj lëkkaloog buur yi foo mos a gis foo mos a gum gis nit yàlla ku commencé rek dem lëkkaloog buur foo ko mos a gis foo fekk buur rek xam nga ne innal muluuka izaa daxalu qaryatan afsaduha yàq nañ ko buur la lëkkaloog buur son yooyu ñu fexe ba samp woote bi woote boo xam ne ay buur ak i eh, raykatu deret ñoo ko ñoo ko ñoo ko ñoo ko ñoo ko ñoo ko encadré jàpp ci ba mu yegg si fii xamal ne woote ceexal la yonentu moom kese fa nekkoon ñëpp ko waroon gannaaw mhm. wala yàlla yi gis nga fii amuñu amuñu woon borom doole sax ñu leen dimbale amuñ ko woon waxuma la ak buur mhm. ba seen biir samp waaye kii nguur ci la jaar nit jamonoom ñoo ko njëkk a weddi mhm. loolu dinañ ci ñëw su ko defee kooku nga mën a dajale ne léegi da nga ko wutal semaine boo xam saa yu ñëwee ngeen dajaloo di wax ci moom dégg naa sama benn waaye nee ma mu ngi ci doon mu naqasha ak benn ibaadu ibaadu mu ne ko loolu maanaam euh, mu wax ko li ci Ibnu Usaymin wax Ibnu Usaymin ne boo gisee ñu dajaloo di wax ci Muhammad ibn Abdul Wahab pour dafa bari noon ñu bëgg a leeral mbiram setal deram hmm, loolu moo tax ñu di ko def te jubluwuñ ci sax jaamu yàlla mm-hmm. hmm, te ñuy gàmm nag dañ cee jublu gàmmu jaamu yàlla léegi ñaar lay wax ñaar loolu moom xoromu a wax jooju romb na mu sax ñaar laay wax mooy benn yonent bi sallallahu alayhi wasallam moog Muhammad ibn Abdul Wahab ku gën a bëri noon fuuf boo ko boo ko weddee rek demal Charlie Hebdo nga xool wala nga xool France ak beneen réew ak réew ak réew ñoom ñëpp yonentoo leen tere nelaw adduna bi xéeféer boo jël yonentoo leen tere nelaw si nasu quran wala tarda an kal yahud wala nasara hatta tatabia millatum yahud ak nasaraan yi kenn du kontaan lu mooy lislaam jóge fi bu dul loolu seen xol du sedd si yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu kooku jarul ñu adduna bi yëpp di leeral mbiram ba ñi nga xam ne ay doomi xéeféer la sax xam ko parce que am na ñoo xam ne xamuñ dara ci yonent bi de xamuñ leen ci jàngal reykat nit la geerkat la nangam loolu lañ xam ci moom <coughs> loolu rek lañ xam ci ñoom ndax loolu lañu def seen doom yi wala ne lislaam diine terrorisme la lislaam diine la ju yàq yonent bi si jaasi la ko tasaare loolu mu ngi fees tepp ci bopp kéeféer yi am na ñoo xam ne bëgguñ sax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax loolu kooku kay moo gën a jar defar ab semaine ñoom waxuma la bis sa waaye semaine lañ ko defee xanaa kooku gën a yee ndax moo gën a bëri noonu benn ñaareel ba mooy naka lay jullit di défendre mbokkum jullit ne jubluma ci jaamu yàlla te xadis ba sax même bu xadis bi amee problème wax nañ ne jullit bu défendre mbokkam jullitam yàlla musal ko safara wallaahu fi awni abdi ma daama al abdu fi awni axi nga ne sa moroomu jullit bi nitu yàlla la liggéeykatu yàlla la nga di ko défendre pour mission mën a jàll nga ne loolu boo si jaamu yàlla loolu jublu jaamu yàlla loolu bu dul jaamu yàlla mooy jaamu yàlla loolu kay mooy dimbale yàlla parce que dimbal yàlla mooy dimbali ñooñu yàlla yow nga ne kii nitu yàlla la nga di ko défendre pour deram set pour nit ñi jublu ko nga ne loolu jubluwoo si jaamu yàlla xam nga loolu mooy bañ a daganal gàmm rek <laughs> xamoo leen loo wax loolu wax ju lu xoromal te te Ibnu Usaymin mu ngi bind loolu ñoom ñi gëm ko moo tax li ma doon wax mooy diine wahaab yi mënuñ koo dund ñoom seen bopp mënuñ koo dund ndax la ñuy woote seen jëf daf koy wetti seen i jëf mooy narloo seen i wax seeni jëf mooy narloo seeni wax saa su nekk waaw su ko defee gàmma ngi noonu kenn mënu ko aaye in uridu l islam astantu ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wasalaamaaleykum wa